Wally Seck jooy ngi noonu ay ca Badou mi ngi noonu Fetal yaa ngay dàq ndeysaan ginnaaw ba Alioune Seye daanee ki nga xamante ni mooy Modou Anta ma noonu di dugg si moom Alioune Seye 2 yaa ngi koy xàllal noonu oto ba yegsi na noonu ndeysaan ànd ak waa Ikiri Waalo oh oh Badou aujourd'hui c'est la fête à Guédiawaye nee naa la tey géejawaay dañuy fekk xoolal ma lii nee nañ ko ibbil buntu ma nga noonu ndànk rek ndànk rek ndeysaan ma nga noonu moom Alioune Seye 2 ma ngay wàcc oto bi ndeysaan ndeysaan xoolal ma waa Ikiri Waalo Badu nee naa la tey feet la Alioune Seye 2 yegsi na fii ci Géejawaay commune de Médina Gounass moo nga noonu moom Alioune Seye di war a wàcc oto bi dugg fi nga xamante ni mooy ci biir këram nga xamante ni fii la bàyyeekoo woon ma nga noonu day yëg ca kaw ma nga noonu ca kaw oto ba Alioune Seye 2 nga noonu ca kaw oto ba ma ngay jàmma sante gaaya oho ndeysaan ma nga noonu moom Alioune Seye 2 ndeysaan xolam a rafet li mu am jëmm ko ma ngay jooy bat Alioune Seye ngi jooy Alioune Seye ngi jooy mu ngi jooy ndeysaan oxo xol baa fees Alioune Seye doo ngi jooy Alioune Seye doo ngi jooy ndeysaan oh Alioune Seye doo ngi jooy ndeysaan xale yaa ngi koy wayal déggal loolu ndeysaan xoola Alioune Seye Junior turandoo daa daa foor ndeysaan moo nga noonu Badou l'arrivée de Alioune Seye numéro 2 moo nga noonu ndeysaan xolam Alioune Seye 2 ma ngay jàmm sante gaay ndeysaan déggal lool waaw waaw nga ne lan seede rek la ñuy topp seede kese seede la ñuy topp ah! ndeysaan nga ne seede rek la ñuy topp moom la ñuy topp moom la ñuy topp ba dee seede rek la ñuy topp waaw waaw looloo neex waxaatal mooy seede rek la ñuy topp moom la ñuy topp moom la ñuy topp ba dee seede rek la ñuy topp waaw ma nga noonu dugal badu ma nga noonu Alioune Seye ngi noonu Badou Alioune Seye 2 ngi noonu Alioune Seye 2 ngi noonu dugg si ci kër gi ndeysaan Badou fi nga xamante ni fi la bàyyeekoo ndeysaan xolam fees na ma ngay jàmm sante gaaya ma ngay jàmm sante gaaya ndeysaan oho ndeysaan ma ngay wax ma nga noonu Alioune Seye 2 ndeysaan ma ngay dem ca yaay ja badu badukaay badukaay may ma ngay dem ca yaayam kaay badu ci yaayam lay dem may oxo ma nga noonu moom Alioune Seye 2 dem na ca néegu yaayam jaaz loo yëg ma nga noonu ma ngay dem ba tey Badou ma nga noonu moom Alioune Seye 2 ma ngay jàmm santeeg waa kër gi ndeysaan ma ngay dem ca yaay ja jaasa ngi noonu oxo ma ngay ma ngay bégalante gaaya ma nga noonu siñoor tey kontaan nga de waaw kontaan nañu tey bu baax a baax. ndax lii la dem xaar ci moom. lii la dem xaar ci moom. loo yëg kontaan rek. gars yi dina war a ñëw ñu bëre. Uh-huh. gars yi dana war a ñëw bëreeg moom. ponkal yi war a ñëw bëreeg moom. waaw ponkal yi. ñan war a bëreeg moom ñan. xam ngeen ko. xam ngeen ñu war a bëreeg moom. waxuma ay Franc. Alioune Seye lim la si laabu Franc defu ko ñun duñu laaj Franc mais ponkal yi am nañu problème ñu si kaw am nañu ñoom problème. duñ lim benn mbër duñ lim benn mbër tey moo nekkoon 16e victoire am Alioune Seye 2 dafa jot dafa jot mu bëre gaa dafa jot mu bëre gaa yi barke karim dafa jot mu dafa jot mu bëre gaa yi Alioune di bëre loo yëg yëguma dara loolu xam naa ne ndam la ñuy ndax li mu liggéey xam naa man xam naa li mu liggéey barke sëñ Babacar Si tey dana dem dee mais day indi ndam li xaaroon nga combat bi demee waaye dégg nga xaaral ko combat bi demee nii ndax waaye yow. door mu daanu bi yaakaaroon benn coup sax lañ ko doon mu daanu waaw benn coup sax lañ ko doon door mu daanu mais mais ñi ñu war a bëreel du ñii Alioune Seye ñu war a jàkkaarloo du ñii man alxuraan karim bokkali na ñëw ñu. wala kii naan Mourou ànd taxawal Baye Fall kay ndànk rek Baye Fall nga ne. Alioune Seye 2 moom rek la ñuy topp ba dee quoi bàkki maam Serapha. instant ñun Franc lañ soxla. François Franc na ñëw ko daan ko. daan ko parcelle. bàkki maam Serafal. nañ ñu jox Franc. Franc na ñëw bëre ñun. Franc. ma nga noonu siyaar naa la. na mu siyaar. tey kontaan rek sama rakk ji ndam bi yàlla na sedd bu yaru la maag magam la woon ki ne Sarr ki mbokkal baay kër gi du ma fi gan xay Alioune Seye dafa yaru Babacar dañ koy ñaanal gudd fan ak wér te ñu jox ko ci combat yi mag a magay moom rek lañ koy ñaanal wallahi te parce que mérité na ko aussi xale bu yaru la ñu koy ñaanal bu baax a baax félicitation moom lañ koy ñaanal lu ngeen yëg macha allah kontaan rek damaa jóge sama kër te moom a ko jaral barke yonente bi ñu koy ndeysaan gaa yaa ngay bëggalante nañu mari jël nga ni nañu mari jël waaw baay nga ni mari nañu jël mari mbër ngeen doon bëral ku ngeen soxla Franc ku si mel ni Franc nañu jël François Gomis Franc Franc moo a dañuy maye saas moo loo Franc moom lañ soxla Franc billaahi Franc gaay ne déggoo ma Alioune Seye laa la wax ñu mu billaahi wallaahi mbëri xaaj bi xaajaat bi wu ak ñoom ah, moo la gën a risque palmarès téeméeri maam yoon muy wut yoon na de. xale yi nee yaakaar naa kii ñu taxawal kenn dootu ko ci làmb Ama ku ko xam xamoon ko ci école de lutte Balla Gaye ku ko xam ci làmb mu def ci làmb lu ne di mag ci alin Seye 2 tey Alioune Seye bëre woon ki nga xam ne mooy Modou Anta yàlla may ko lu rëy ginnaaw buñ la bàyyee nga nuyoo Alioune Seye 2 tey lim lim bëri. ah lim bëri nii kay ah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur Alioune nag moom moom mën na am lu ci àdduna ndax uh-huh. ndax ndax yaroom yàlla daf ñu boole ñu bokk ci kër gi mu nekk suma rak uh-huh. jox ma cër lool lamb ji nag métti na méttiwaay boo xam ne lii rek la ko yàlla mënoon na fay uh-huh. te lii ñëw ci moom moo daax mais amul ku mënta daan dafa tardé ci lamb rek mais coow li lamb ji àndaloon moog moo daan coow li li amoon coow li diggante moog moo daan waaw diggante moo daan parce que xam nga ñaari xale lañ yoo xam ne dañoo jógandoo te ku ci nekk bëgg a dem moo daan yàlla booy bu mën a bëri la mais da fee fekk lu gën a dëgër loolu. Aline déggoo li ma la wax ñoom Balla Gaye ak yi yëpp ci tànkam lañ jaar mais yàlla moom mooy dogal quoi yàlla moo dogal mu demee nii quoi mais tardement la rek. mais dañ koy ñaanal yàlla maanaam mu am lu ra kii ñu war tam. ni mu demee bet na Ama Sarr. ah combat am ni mu demee bet na la. bi uh-huh. man moom leeroon na ma Alioune Seye da day daan. wallaahi lazim xamoon naa Alioune Seye da day daan. mu daanu. mu daanu bi. sama doomu baay bu bu ñëwee nag xoox fii laa toog mu ne ma nu muy demee ma ne ko incha allah lamb a dóor mu daanu waaw nii laa xooxee fii la toog bu ñëwee boo xolaay nu ko mais yàlla moom mooy def lu ko neex uh-huh. yàlla suturaal nañu uh-huh. ah, lamb ji di ñëwaat yàlla nañu suñu borom may ah mais franc nañu jël franc franc franc nañu jël incha allah ma nga